géew bi combat dox ci diggante daral ak seeraas <laughs> maa ngi nuyu ñes gànn gànn nuyu naa la moo nga foofu ca daral ba soo diggee seeraas maa ngi fay am ki nga xamante ni ni mooy lamit Sox moom ca jaay yàpp ba la ne eh, noonu mbër yaay noonu ci digg géew bi kenn kaa ngi tudd dara kenn ki tudd Ama Seras baat bi naqari ba xam kenn mësul gis nii nooñu ma gëj naa ko gis nii dara la Ama Seras waaw Ama Seras bi moom pare ak jatam bu yàgg bii loo xam ci diggante daral ak Seras kii yee tudd daral kii yee tudd Ama Seras. ah dina doy waar daral ak Seras daanaka benn la rek. benn la moo. da Seras dañuy na waar na benn avertissement. daral la ñuy jàkkaarloog moom waaye daral mi mel ni daaw moom de. ma looloo ma jaaxal daral daral a ngi dox ci kaw Ama Seras mais daral mi neexut a de. daral cokkaas na léegi daral Oma Seras daral cokkaasaat na daral Oma Seras daral dooraat na eh daral ni muy daral Oma Seras eh daral doon na ko léegi Oma Seras fay na ma ngay daw eh daral la ngay daw da koy delloo daral day daw. cey làmb ji taxawlal daral am na seeraas mais seeraas ak daral lan moo leen boole ba ñu war a mën a jëflante bu metti bi ca deret ja lañ bokke ñoom loxo baa su meeku ne ko kàccit loxo bi dana karet su meeku daw rek la mën a def mënul def leneen bu doon ci digg géew bi sax du ko jàpp mais mais mais daral mi neexu ko ñeme de nii mu ko gisee nii <laughs> ma jaaxal deraat di seeraas daal ak daral ca nag ak xar ak gileem ak lañ bokk. tax ñooy noonu ci digg géew bi ndax la ngay dem ñoo ngay delloo loxo ba loxo ba daa simeeku daral Oma Seras ñoom ñaar ku ci nekk am nga benn avertissement daral am na benn avertissement Oma Seras am na benn avertissement waaye dara lewaatoon bii day dóor de xoolal rek xoolal léegi mu dóor daral Omar Seras daral Omar Seras dóor na daral Omar Seras daral dóoraat na daral Oma Seras daral a ngay xeex moom daral baax duñ la dóor nga daanu. bu mënoon a dóor da koy door mu daanu. kon Oma Seras de. waaw kii ñu woon ginnaaw. waaw Oma Seras. bu mënoon a dóor da koy door mu wàcc. parce que dèjà kee bëgg na dóore mais ñemewul ku ko door gis nga ko jeexal loolu jeexalu ko buñ dëggalee seen bopp xeex dóor mu daanu. dina amul garde amul garde ñoom ñaar ñëpp a yem. jiyaar dóoral ma dóor bu dakkul dóor mu daanu am. na bañ a dakk rek gis nga da koo teg pression instant yii nii te moom tamit rus naa daw moom deral rus naa daw te Omar Seras boo dee xool ci taxawaay moo ëpp gabari mais xaw ma moo ëpp doole Ousseyn am déet. mais daral mi bu ma koy xool dafay mel ni mbëru yàgg yooyu la jox. a ah, ancien combattant lay nu lool de parce que boo ko xoolee da nga naan dara ak mbër nekkul ci moom parce que sew na mais mën naa nekk sew diis mën naa wow comme genre boo Dakar yi door na ko. boobu dal na de bu loxo bi su meeku mu neex. da daan nag bu la na yee koy daw waaye daw leen. takk nañ ko da koy daan. bu ko dammul rek mu baax. bu dee gaañu ko rek baax na. doole doxul jàmm. da doole nag. fuuf. xoolal combat bi dama ko jëlee avec plaisir. waa ci Seydina Mohamed. ànd see course na la fay. waa ci Seydina Mohamed. daal ak Seras lan moo leen boole. waa kii. xar yee ñu booleeg nag yi. waaw moo ñu boole. mais barki Seydina Mohamed. kuy compétir bëre dóor. jaxaw siin pataar laa ñaar. benn combat jaaxal la.